salaamaaleykum na ngeen def si jàmm Lalla dara jotu ko Lalla dara jotu ko dafa def semblant rek doful liggéeyuñu ko dara jotu ko wax keroog waxoon naa ko ci wiri wiri bi mani ni doful ma ni kii doful bu dof ma ni ma ni kii Cheikhouna def xarawul te nu ma ko waxee loolu moo am kii wiri kii Lalla doful dara jotu ko te kenn liggéeyu ko ah. sama xel loolu rek moo doon solution bi daal mm-hmm. parce que dafa wóolu woon boppam trop loolu moo tax waaw. asalaamaaleykum na ngeen def ça va nuyu leen man nag série bi moom dama koy suivre neex neex na mu trop mais man mii si dama waxoon ne lalla dafa jéem woon kii boppam nag moo ko tey xool naa ba xool daal teyu ko de xëy affaire bi da ko bett ba mu donc moom lu mu bëggee jëkke ji moom dafa ëpp bañ na ko ba àjjana la koy wooyee nu mu ko bëggee ak jour bu mu ko peet ak surprise bi mu doon defar jëkke ji xam nga li ma la wax yëpp li ma la wax surprise bi mu defar jëkke ji yëpp jëkk ji entre fekk ni sol lu weex mu ne seex lu ma gis nii lii la nii affaire bi mun na ko dépressionné mun na ko def ci man daal man mi dama foog ne lan la man dama wax lan dafa bëri feem waaye bu ma xool xalaat a xalaat affaire bi mën na koo choqué trop trop trop ba mu ba mu demee ko fiir moom fiir jigéen bu fiir baaxul jigéen bu fiiree am na cap mën na capable def ne kon ñu jàppale noonu daw si ne lii mën na ko seetaan merci man loolu sama xalaat. allo waaw waaw affaire bi. ni ma ko gisee man ni ma ko jàngate waaw maanaam uh, laal la day dof dof lu rek bëgg ku ko bàyyeeg yooyu bëgg ko wàcc ñaareel bi waaw day dof dof lu rek bëgg ko wàcc ñaareel mais man li ma jàpp mooy ni dofut daal waaw loolu laa jàpp waaw dama jàpp ni dofut daa bëgg ku wàcc ñaareel bi maa ngi leen di nuyu di man dama seetaan série bi mais man dama jàpp ni Marème wujju yi daf ko bett rek te nit nit ku nekk nit la lu la bett lu ne man la li ma rafetluwul mooy xëy na jigéen mënta bañ a am wujj mais boo demee ba sa jëkkër ne la takkal bu fekkee jox na la respect bi war dafa war a ñëw wax la ko surtout que nga am aawo boo xamante ni nii mat na aawo li ma seetaan ci sëri bi mooy Marème sëy bu rafet la sëyal Seex Njaay kon bu demee bay takk li cëram mu jox ko ko muy mu wax ko ko ak lu mënti metti rek mu wax ko ko jigéen ñépp a yem bañ nañ wujj mais li gën a metti mooy mu bett la loolu rek la moo ko détruire asalaamaaleykum lu xew tv ça va waaye ngi si jàmm ça va man ne dama bëggoon na wax si film bi parce que dama koy suivre waaw film bi neex na ma trop sax macha allah mais Cheikh man moom laa condamné parce que yow mënoo yàgg sa jabar ne dangaa bëgg sa jabar bu pare nekk ak moom di dund lu neex ngay doxaan mu xam ko teg si jët sa bët nga xëy na danga koy takk au moins que ni war nga koo dalal ba mu dal ba pare nga doog a waxtaan ak moom njëkk ak teraanga ba xelam dellusi nga doog a dem takk mais ni mu ko defee dafa jëlee kii kaw daf ko jële kaw mën na mën na nekk mën na dof loolu mën na def loo nit man dama koy xool comme sama bopp rek bu doon man la mën na dof loo nit na daf koo jëlee kaw yaakaaru ko woon ndax moom mu ngi doon wax naan cheikh du takk du takk du takk kon bu xëyee takk mën na ko def loo mais en cas de laal euh, ak Cheikh moom Cheikh moom li mu def euh, du respect loolu du respect waaw côté boobu moom man Cheikh li mu fa def man loolu du respect parce que jigéen boo respecté sa jabar moom def naa ni mu teg la fa mu la war teg di la toppatoo am na yoo xamante ni waroo cee dugg parce que fi mu njëkkee def faute mooy lenn bu jabaram génnee muy jël geram di ko indi di ko teg ci lalu jabaram ñuy dund dund yu ñaaw yooyu xam nga ba doomam dem di ci teg bët un jour viendra moom mu xëy ni takk na ndaw soosu loolu rek moo gën a nekk moo moom du respect loolu du respect quoi parce que pour man sama gis-gis jigéen boo nekkee moom war nga ko mën a jox cër boo xamante ni bu ëllëg ci biir booy dugg ci lool ci leneen xam nga boo si waxtaanee moom tekk ak teer dina xam ni carrément yow mi ko nit ful nga waaw mais comme noonu daal man jàpp man daal respecté na laal la daal affaire yooyu te laala aussi tamit man li muy def nii dama jàpp ni day dof dof lu xel nangul lool sax nga dugg ci néeg tëju ba mu neex la nga génn sol sa ñaari dàll yoo xam tolloowul nekk fi naan ay nee na du ko takk ak dina ko takk man dama jàppoon day dof dof rek day dof dof lu pour xam nga sa xelam xaw a sori tuuti mu mu mu bañ a tal ndaw si daal comme yenn comme li waa ji wax sànq man loolu laa jàpp day dof dof noonu mais peut-être après loolu day jeex daal te Marème tamit narul am sens boo xoolee daal xam nga après gis naa ni moom mën na nekk koo xam ne après. dugg na ci sëy bi mais boo xamee lu koy sonal lay doon man sama gis-gis. loolu ndaw si wax dernière ndaw si neen lu mu wax moom ndaw soosu lu mu wax dara ku mu jëkki lu mu wax mooy yoon bu mu fekkee laala la préparé affaire am yëpp teg ah, xam ne kii moom dafa fiir bay dof mun na si daanu foofu moom si saa si gaa nangu woon naa laal foofu mun na dee mun na daanu xam gaa loolu c'est normal daanu xam wala foofu mun na ko jam paaka moom góor bi munoon na ko jam ko jotoon. bu ànduloon conscience am da koy jam mënoon na bàyyi rek même ñee ñoo ngi koy xaar ñu continuer seen soirée ñu lekk naan comprendre nga lekk naan plan yëpp am na bu paree bu demee bu tëddee mu dem lil demeel kay du passé lil demeel mun nga bàyyi ba minute une heure nga nga def plan nga ni doon la woo nga dem téléphone góor yi kay noonu la ñuy def wala <laughs> noonu rek mooy solution bi mais loolu rek moo la waroon def nag kenn du annoncé nii waaye takk naa ko non non non foofu rek. Hmm? laa foofu si dafa waroon daanu sax mu xëm nag loolu moom daan wax dafa xam dëggante njaay parce que ni ko waxee waaye bii day dof doflu waaw. baal ma des ci wolof bi euh, pël la moo tax wolof dafa xaw a kii dakaar nga nekk ma ne dama ni Lalla depuis mu génne ci néeg bi <laughs> am fan laa ko jàppee fu muy wax fase ko fase ko. Eh, <laughs> am na yenn yi boo doo xoolee rek da ngay xam ne lii daful mais day xool ndax kii dina fase wala du fase xam nga jigéen ñi moom danoo bare kii ku muusul nag du mën a comprendre keroog wiir wiir ma ne kii ana kuy xaru di dindi yére di teg di enregistre loolu ça veut pour ñu wax ne dafa de man depuis premier jour ma ni deewul deewul du dee du dee ni soit mu dem prison wala mu dem buñ ko yóbbee ba foofu il faut ñu jàpp ko daal mun na mu xaru wala à vie jeex na. sëñ bi na def ça lu nga ma wax ci affaire Laalia ak Seex ci seen séeréer bi ñoom metti na ma lool moo tax ma jël sa numéro pour xamal la nii bii nii seen séeréer bi nii nii neexul ñëpp neexul ñépp laala moom bu bari yërëm nañu ko. man nii sax bu mu doon di xoolee seex di dem noonu ak bagaasam dama doon di jooy sama ronko yépp mi ngi génni dafa metti seex war na ko yëram seex war na xamee nii balaa mu xam àddina moom la amal xàddina moo ko xamal àddina ci foofu noonu mais balaa mu xam moom laal ya nekku jigéen bu caaxaan musul caaxaan di xool ci ginnaaw musul def lan ubbi bitëgam bokk ko seex seex moo ko ëppal mais loolu yëpp xoolu ko mu ngi ñawal jëkkëram def ko lu nekk gis nga affaire lu mu ko doxalee nii moom di noonu métti na ñëpp na xool solution pour mun a rafetewal affaire bi daal na xool solution mu mun a changer pour mu rafetewal wax bi ak Laalia foofu topp Laalia bàyyi mariage bi mu def noonu yëpp na ko bàyyi teg ko ci suuf mu daw ci ginnaaw Laalia ba ñëpp xamee ni nit nii la day fonk nit waaw. loolu laa bëgg mu def ko su ko deful moom franchement amul fay xol yërmande loolu moom dina bett ñëpp na ko def waaw. salaamaaleykum sama mbokku jullit yi maa ngi leen nuyu yéen waa série maîtresse gërëm dina laaj mbaa yeneen ci jàmm man la Bara depuis France man de vraiment. seen série bi depuis épisode 1 ba 27 maa ngi ko seetaan yépp neex na ma am na solo neex na ma am na solo trop trop trop woy mais seex diggante seex ak jabaram foofu mun sama xel bu gàtt bi daal mun naa wax si man si man li ma gis foofu noonu xam nga su dee man na su dee man lu seef di def su dee man la wax ma keneen ki bu dee man la may nekk di doxaan ci biir ba sama jabar ñëw jàpp ma loxo ak loxo boobu dal su dee man la dina bàyyi doxaan su dee man la dinaa bàyyi doxaan waaw su dee tamit damay takk beneen jabar mbaa ku ma nekk di doxaanante moom laa bëgg a takk duma ko takk wax ma sama jabar non jamais dama koy wax ah léegi bugg maa foowee waaw dëgg-dëgg yàlla bugg maa foowee bëggoon naa takk ñaareel waaw bëgg naa takk ñaareel mu dëgg mu xam daal ah sama jëkkër de mu ne lii ak lii la bëgg waaw si boobaa daal may déglu parce que ñëpp xam ne benn jigéen et wax daal benn jigéen mais daal mën naa wax daal ji si jigéen yi ñi bari ñi bari bëgguñ e, aw e, bëgguñ e, wujju daal xam nga bëgguñ wujj mais comme ñun suñuy suñuy suñuy suñuy lislaam dafa waxoon ñu ne góor mun nga takk jabar bo ba ñeent ba ñett soo ko mu ne ñaax soo ko ne soo ko munee tamit nga yéemu benn waaw mais de lépp li ma war a def daal dama ko wax sama jabar ah man de bëgg naa takk ja eh, ñaareel mbaa ñu naan lii ak lii pour mu xam daal waaw parce que seet lu mu def nii baaxul Eh, waru koo def daal waru koo def gis nga bi mu génnee pour jabaram seex daa xëy bu dem liggéey ñëw si kër gi mu fekk jabaram toog lu mu war a toog def lu mu war a def xam nga nit su la defee loolu nga ñëw fecc ko mu ngoy def mu ñëw encore gisaate comp yeneen comportement loo xamante ne mu musu laa gis si loolu vraiment dina ko métti loolu trop trop trop parce que instant bi gis nga instant mu nekk di tëje kase ak plateau yooyu noonu ba dem sax jël paaka nee na day jàmm comment dem mun ne daal loolu loolu su ma su ma ko defee rek mun naa nekk ma yàq sama àdduna parce que mun na nekk daal ñu ma prison mais loolu yëpp mu xol bi mu munta ko attan doom dugg si biir néeg nekk foofu ba di tension bi monté xam nga mun ne nekk tamit liggéey la xam nga mun na nekk tamit liggéey la mun na nekk tamit tension bi daal moo monté bu jokk ko problème bi ko xam nga donc foofu daal mën na nekk liggéey euh, mën na nekk euh, comment dire euh, tension bi la quoi waaw. asalaamualeykum mbokk yi na ngeen def ça va yéen a waa maîtresse ça va yéen a ci jàmm ah film bi moom neex na macha allah te tegu na ci temps bi. film bi daal macha allah yàlla leen yàlla lafal cat waaw man damay wax ci ka kii seex bi ak aawom bi waaw xam nga aaw bi daka xam naa ni dund nañ loo xamante ni musul yaakaar ni seex dina ko wor mën na fa jaaree nag xel mi dem xam nga yaakaar bu tas ak xol bu naqadi mën na la def looloo xamante ni rafetul bu rayoon seex tamit moom ci boppam mooy perte ndax seex day dem dee noppalu ji moom mu des ci àddina bi di souffrir ak doomam du dee du dund waaw yàlla na daal yàlla musal mu bañ a xel mi daal bañ a dem góor ñi daal jëruñu dara ci yenn góor yi nag ci yenn góor ñi wante ñi ci ëpp ci Sénégal ci góor ñi fii ci senegal moom jariñu dara dëgg yàlla merci beaucoup maa ngi jéggalu nag mënuma wax bu baax asalaamaaleykum sama mbokk yi maa leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal bu baax a baax man na man nag maa ngi tudd Mariama Dabo sénégalaise la instant maa ngi Italie waaye dama leen dama leen déglu seen émission bi bu baax a baax a baax seen mission daf may neex trop trop trop parce que da ngeen di maye ay xel gis nga kuy nag kuy déglu seen émission bi moom dina xam nu muy doxalee ci àdduna nag waaye épisode bu ngay bu ngay kii ni épisode vingt sept ci série maîtresse d'un homme marié ah déglu naa tamit lu ngeen wax bu baax a baax man de dama euh, foog ne nu mu def nii loolu nekkul ne dafa ragal wuy jee wala dara bëggeel bu mu bëgg euh, jëkk borom këram loolu moo ko waral lépp te borom këram nu mu doxalee nii waru ko doxalee ñëpp xam nañ ñun ay julit lañu góor bu nekk am nga droit takk ba ñeenti jabar loolu moom sa jabar mun na war na ko suuraale en fait jabaram mu ngi koy occupé yëpp nag mu ngi koy defal lépp lépp lépp lu jëkkër lu jabar war a defar jëkkëram daal mu ngi koy defal daal waaye góor moo ñun ay julit li noonu lañu lañu war a doxale parce que am nañ droit takk ba ñeenti jabar waaye nu ko doxalee noonu la ko warul doxalee parce que mbëggeel bu mu bëgg jëkkëram loolu mun na ko pétti bi te mun na ko dofloo nekkul ne dafa ragal wuj wala dara ah en fait tamit ñun jigéen ñi ñu bari bëgguñu wujee waaye tamit euh, nu mu ko doxalee noonu waru kaa doxalee war na xalaat ci nura doomam bi war na ko xalaat bu baax a baax balaa muy def jëf ju mel nii. asalaamaaleykum waa chers yi yëpp maa ngi man nag sama analyse mooy. Euh, parfois góor ñi ñoom ñooy une erreur yu mel noonu parce que soo amee sa soxna maanaam nga di ko gëmloo ni ko du ma takk deuxième femme benn instant tamit ba gëm loolu benn instant yooyu nga takk deuxième femme loolu mën naa dofloo nit loolu lu ma a dofloo nit la waaw ñun góor ñoom nañ ci bàyyi xel loolu bu baax a baax waaw comme tamit la la foofu ni mu doxalee am njàngale la. comme ni nga ko waxee bari na jigéen ñu uh, rey seen jëkk waññu di ko réccu waaw loolu moom njàngale mu am solo la nañ si bàyyi xel bu baax a baax loolu laa ci amoon ci lu may xalaat. salaamaaleykum wa rahmatullah na ngeen def yéen ngi si jàmm waaw man sama xalaat ci mbiru laal la mooy que ni dëgg la def na li ko war lépp ci sëy wala mi ngi koy def bopp mais dafa war a continuer di def loolu teg si ñun bu ñu bu ñu nekkee ne dañoo nekk femme mariée soit que ñu nekk awo wala ñu nekk ñaaree surtout ñu nekk aawo suñu sëy lu mu neex neex neex suñu jëkkër lu mu ñu bëgg-bëgg lu ñu nekk ay complice nekk ay complice bu mu tee ñu def suñu bopp ñun dañoo mën na mën nañ xëy bis am wujj man loolu mooy tax wujj du la bett du la dofloo du yàq sa xel laala su nekkee ni doful day dof dof def ay pexe ba ndaw si def def na lu mu warul def su nekkee ni dafa dof carrément ndaw si gañe na ko te kenn ku nekk war nga am sa mat wala nga fees sa place ba nga xamante ne si beneen jigéen bu ñëwee du yàq dara sa toogaay fekk yow dangaa ne ci li nga war a ne keneen ñëw nga continuer ci li nga war a ne xam nga wujju lan moom andi woo ko fi mënoo ko fee jëlee. yow it andi wala fi mënoo ko fi jële kenn ku nekk sëy moo la andi soo defee sa bopp lool rek benn problème doo ko am dëgg la Cheikh xëy na ni mu def loolu rek la xawlaat pour def ko parce que laala may ko benn bunt bu mu waxtaanee ak moom wala bu mu takkee te bëgg na xale bi loolu rek la jigéen bul jàpp ne defal naa sama jëkkër li ma ko war a defal lépp jekk naa rafet naa maa ngi def li ma war kon soxla bu leneen ku la ko wax jigéen bu nekk dafa am loo koy doyee mën nga takk beneen jigéen te fekk sax amaana ki nga nekkal nga gën a bëgg moo la gën a satisfaire moo la gën a toppatoo mais di nga gis leneen loo xam te ni yaram soxla na ko wala sa xol soxla na ko bàyyi ko takk bu mu yàq dara ci li nga daan nekk loolu rek moo am sol aywa nekk leen si jàmm. waa asalaamaaleykum waa Marodi <laughs> naa leen ci loo leen nekk ci jàmm. bon man nag maîtresse d'un homme marié mosuma ko manqué série bu ma neex la macha allah dama koy suivre mosuma ate benn épisode mais daal pour man laal la waruloon def xaw ma day def xaw ma day def def waaye man ak nu mu defee nii daal amul sens daal daa war a muñ rek toog waa may rem ñëw ndax dañoo war a wane dañ ñun ci ñoom dañuy roy daal bu ñuy seetaan théâtre am na loo xamante lu bari ci séeréer yi lañ koy jàngee kon buñ gisee kaa yu mel ni dañuy jeexal torop salaamaaleykum Lu Xew TV dama duggoon léegi YouTube bi rek doon xool kii maîtresse d'un marié la la réaction bi def si laa jëlee numéro bi ne xaama wax ci sama xalaat parce que man dama yaakaar ne laala dafa teg stratégie stratégie la teg nii rek asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu man affaire bi ma gis mooy tenue chose jigéen ñi dañu war a bàyyi di vénérer raison def ko finalité foog ñi rek bu góor bu amul duñu mën a dem ak ah, c'est pas le yàlla dafa ne nañu góor ñi tab suñuy bànneex duñu def lu neex duñu wax lu neex duñu mettre à Alors que remarque au Sénégal, c'est carrément le contraire. Bon, quant à Cheikh, Cheikh moom dafa manqué parce que góor góor a may na la ba tak takk ba ñeenti jabar soo mais ak am nga moyen financier am nga capacité physique bi am nga xol boobu mais attends kenn du ma kidnappé ñi mën a gisee ba bëggul a tàkkal indi la si biir kër gi maa ngi wootal noonu laa amee droit gis keneen bëgg ko mën ko takk indi ko si biir kër gi keneen keneen keneen bu mat kat loolu lislaam moo leen ko may mais nañ ko def nu mu waree jigéen ñi tamit nañu revenir sur terre te xam ni les hommes noonu lañu mel mënuñu nekk fidèle am na bu ma ni est-ce que xam nga chou ma ne ko waaw mu ne ma le cœur d'un un chou heure boo nekkee ak ki nga bëgg prends ton plaisir defal ni dara existewul dans le monde kenn existewul ku dul boobu instant bu demee ko jeex nga vivre happy nice moom tam mu mën a vivre happy nice comme noonu la len yàlla bindee ah nañ leen jàppee noonu rek te di leen ñaanal ndeysaan waaw asalaamaaleykum ñoo ngi leen ziar bu baax baax di kontaan ci question yi ngeen ñuy posé pour ñu wax ci comme Cheikh bi mu ne laal la takk na Marème waaw man de ma jàpp bokk pour li ma jàpp pour man laal la moo ko tey quoi moo ko tey parce que foofu dafa bëgg yàq xelu xelu Cheikh bëgg a yàq tamit xelu yaayam yaay Cheikh waaw parce que yaay Cheikh nee na ko bëgguma bëgguma mareem léegi bu dikkee ni ko daaw góor nee na sëy du am parce que du ko liggéey Cheikh day jàpp ni mareem dafa dikk liggéey laal la daal di ñaawal xelum Cheikh daal laal la daal li def moom jàpp naa ne moo ko tey waaw jàpp naa ne moo ko tey de waaw. noo def sëñ bi ci la nekk yéen a ngi ci jaam ñun film bi maîtrise naa ko bu neex na tamit trop macha allah mais pour man laa la daf ñuy nax man loolu laa la xam naa riir bi wax nga dëgg ndax télé mais pour man laa la daf ñuy nax parce que tamit boo seetee la ni mu mujjee ni mu maîtriser euh, rivalam bi ak li mu def yëpp tamit te loolu yëpp da koo maîtriser ba ñëw ba tay jii muy def lii man loo gëm naa ne laa la def ni nax daal ba tax na tamit film bi tamit neex na macha allah trop mais pour man comme laal la xam na li Cheikh di def lépp. ñu maîtriser ko ba mu toll fii nii man pour man laala di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen mën a muy ngeen def bàyyi ngeen am jàmm di rafetlu seeni vidéo yi ngeen def maa ngi ciy sant vidéo bu ngeen def maa ngi koy seetaan am na solo bu baax seen vidéo yi ngeen di def di wax ci émission set bi. a ah, man laala ni ma ko gisee day dof dof lu man noonu laa ko gisee pour bëgg seex wacc mareem rek man noonu laa jàpp ne moo tax muy dof dof noon noonu pour bëgg seex wacc ko ndax xam na ni yaayu seex bëggul àndu si sëy bi tax mu ne boo waxee loolu boo ne xëy dawut da ko liggéey na ko fase bu ko defee yaayu seex mën naa ni seex danga koy wàcc ndax mareem da laa liggéey moo tax naa yam ki nangal man loolu noonu laa gisee pour mareem laala daal day dof dof laa yaakaar pour mbëgg mu wàcc rek mais doful carrément daal ndax takk naa rek moom mënu see dof am na yu gën a gaaw a dofloo waaye takkal naa la wujju rek man nga see def lu nekk nag mais dof moom yëkkëru mu ne yombe na noonu daal man sama xalaat bu gàtt mooy pour man jigéen waruñu laa takkal ak luñ la takkale wujju takkale wujju ñu ñàkk la ko wax nga xam na daan dox na ko sa borom kër daan doxaane nga xam tout ça tout xam lépp mu dem ba takk ko mu doon loo xam ne mbetteel la ci yow mu ñëw wax la ko te foogiwu ko woon te musi na woon carrément doo ko mos takk nga takk ko tamit pour man ndox dëgg yàlla waruñu laa takkal wujju rek nga jaare ca dof xëy na kooku joor li mu bëgg a def mooy dafa bëgg a tëral pexe ba ñëpp xam ne joor dafa dañ ko takkal wujju mu dof def googu noonu tey mën na ci utiliser ci biir kër gi tey cheikh ak ki mu takk bu ñëwee kooku noonu toujours mu koy def loo xam ni jëfinu dof lay doon te bu boobaa ak fu mu mënti dem da naan kii kat wérul ndax àndut ak xelam moo tax xëy na muy def lii nii ci beneen côté mooy parce que jigéen tamit dafa bëri pexe mën na ni dafa dof fekk doful am na lum lum nar am na lum nar a def waaw te jigéen dafa doy waar dafa louche kenn mënu koo comprendre tu vois te Cheikh man pour man li def nii il a devoir mu def ko mooy am na ci droit mu def ko ndax góor la góor am na droit ba quatre femmes kon man li def nii man amuma ci benn kii boo xam ni daf may def maanaam daal man daal li ma ko jàppee maanaam daal devoiram la def joor xëy na dafa nas benn pexe bu mu bëgg a def moo tax mu dof doflu mais dafa gaaw diggante xefa xefi nit mënu fe dof ak lun la ak euh, nit loo mënti ànd bañ a ànd teg sa sago tamit am na kii boo xam ne wax dëgg yàlla même buñ la ko doon wax sax war ngaa mën a ànd ak sa sago pour man joor daal day def daf lu dafa am lum nas bëgg koo def parce que jigéen dafa doy waar dafa bari pexe. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah donc euh, dama doon seetaan léegi seen kii yi ma gis ma foogoon sax série bi dafa am léegi ma gis ngeen di ngeen joxe numéro bi ne pour ñu joxe suñu contribution en fait man li ma ci mën a wax mooy euh, comme buñ ne maîtresse d'un homme marié man pour man ci maîtresse la war a mën a yam euh, Cheikh waratu mën a takk femme bi en plus Euh, Cheikh bu fekkoon ne que na takk femme bi pour man du ko indi ci kaw lalu jabaram ci kër jabaram di defante moom lu ko neex nekk moom fu ko neex après mu war a takk kooku indi ko pour mu wujjeeg jabaram pour man loolu rek moom loolu moom ça ne parce que bu fekkoon ne que ku muy takk la soit du ko indi ci këram du ko tëddal ci kaw lalu jabaram du def ak moom yenn yi ci kaw lalu jabaram en plus. du ko lii du ko utiliser noonu di koy doog takk donc man ci sama xalaat bu gàtt loolu laa gis te buñ nee maîtresse d'un homme donc warut a marié waru cheikh waru ko mën a takk mariage bi ci doxaan rek la waroon a yem dañoo waroon a ci doxaanante bi ñu doon def noonu mu nekk maîtresse am waaye du du du ko takk ba pare dafa manque de respect jabaram ak yooyu. pour au euh, kaaw Lalla nag je pense que la dafay def noonu pour sëy bi mën a tas pour Cheikh bañ dem ci jabar ji loolu laa gis te nag Cheikh warut a mën a dem léegi ndax dafa takk nëbb takk bi donc warut a dem brusquement lune de miel te waxtaanul ak jabaram ba jaba ji giif bu mu giifal jabar ji ba ñu trouver solution muy soog a dem lundam yàlla xanaa sëy ba soit duñ ko consommer loolu laa loolu laa gis ni moom moom la war a demee donc boobu ba léegi damay commenter ci loolu ma ne Cheikh waru ko waru ko woon a takk parce que dañoo ne maîtresse donc tey bi ma gisee numéro bi looloo tax ma jël ko léegi laa ko gis moo tax ma jël ko daal di ci joxe sama contribution daal. ok merci. waaw ah, jërëjëf jërëjëf amul solo xam nga fii moom bi day man moom damay damay suivre comme ni ma la ko waxee fii moom bi def naa sax mën naa wax ni sama ñaari xarit man maa tax ñuy seetaan fii moom bi parce que man maa ñëw expliqué leen premier épisode bi ni mu demee et tout xam ñoom après bon bi mu dawee ay deux si lañ commencé di ko suivre et tout nag euh, am na solo am na solo ah parce que boo xoolee yi ñuy joué si film bi yëpp kaaw mareem jalika booy bu am yaram bi et tout ñoom ñëpp ku si nekk dafa am réalité boo xamante ni moo fi nekk si jamono biñ taw nii moom la ñuy tund euh, ñëpp ah ñëpp ba si jël bi ma lay wax ni xamante ni moment am def ko contre de trop te man dama naan tey yaay diggante ak yaay joom yaay ak doom ni mu mel ni amee solo mère bi war a mën a contre doom ak te moom li muy suba ngoon guddee bëccëg nekk si sànce ku ne xam maçon ni mu méttee parce que man mason la ku ne xam maçon ni mu méttee moom muy dem di nekk si chantier yi di lijjanti di ñafe bon yor ko si lépp aussi ñu maire bi di ko di ko métital tout le temps écoutez peut-être man mënuma mënuma comprendre est-ce que réellement que yaayam la man je te pose question man dam koy wax est-ce que réellement maire bi moo jur femme bi comprends euh, côté boobu man dama naan bon kii du yaayam quoi franchement du yaayam peut-être su rakku yaayam la wala mais du yaayam daal man côté boobu damay wax euh, mais nag ñuy bàyyi xel aussi di xam ne Sénégal yi yeewu nañu yeewu goo xamante ni fi moo bu ñu mënti joué rôle bu ngeen mënti joué euh, am na ñoo xamante ni dañuy seetaan di suivre am na ñoo xamante ni film bi moo koy neex xam nga bës bi mi ànd ak am na ñoo xam te ni dañuy seetaan di xool action yu bari erreur yeex yoogu donc man euh, je te dirai gis naa si benn erreur bu ndaw bu si am hmm, si film bi te pour moi man euh, dama koy gis si film yu bari te bon dama naan loolu war nañ ko mën a jouer niñ ko war a jouer moo gën dañuy xaw di nax nit ñi parce que ku pauvre euh, jar ba nga meeram daf ko contre moom amuñu am benn bi ba pare ñu dëkk si gàll bu dux loolu xel xel nangoo ko quoi xel nangoo ko comprend Euh, ñu ñëw si yaayu cheikh yaayu cheikh nañu goro yi am nañu si leçon bu ñu war a mën a tiire foofu mooy ñi jur góor ñi xamante ni ku am na doom bu góor wala yàlla may na nga doom bu jigéen wala yàlla may na sa doom si ne itu yow yëpp foogu goro am na fa nañu bàyyi xel ne foofu maire bi day wane raison ni goro su soxoree goraam bu jigéen ba fi mu mujj ëllëg day dem ba xam ne ni moom nekk di yow kii mën a woon naka dara parce que soo xoolee Jalika tey gis nga si épisode yi mujje bi Jalika jógee foofu ba mu ngi fobeer mu ngi mais mu ni moom nekk di yoo doom tekki woon dara si kër gi jariñu woon dara si kër gi jalika mooy lépp moo defal lépp boppam moom moy mooy lépp daal mu ngi koy mu ngi koy doo comprendre bien vrai que waxu ko mais xam na xam na parce que mère bi joué na rôle bi méchant c'est pas que dafa méchant joué na si rôle bi méchant et tout mais euh, su toogee xalaat dina xam ni ne hmm, moom voilà mu ngi doog comprendre ne doom ji du dara donc nañuy bàyyi xel aussi côté boobu dama ngeen siy wax ngeen bàyyi xel bu baax message message bu may lancé si joué que film yëpp film bu kii pauvre nañ ko dugal fu am fu fu mu fu mu dëkk si ni mu koy joué mais d' accord ma maire ba nga xamante ne moom dafa nekk ak doom doom di liggéey si entreprise bi si chantier yi nekk fa cadre bu war liggéey saleer am mayu ko euh, mu dëkk si kër googu di fay courant ñu war a dund di lekk di naan non man d'accord ma loolu salaire mayu ko muy dëkk foofu et puis ñoom dañu dañu dañu amu amuñu bon dañu war a jouer ni film bi ku amul dañu war a dugal foo xamante ni dañuy xam ne ñii dañu pauvre mais tey ngay woo boo duggee këram bon doo ngeen jàppee ni dañu bëri doo moom moo fi nekk ak yaayam moom mooy dakti dakti di ñëw da nga naan ñii macha allah et tout xam nga donc loolu nañ ciy bàyyi xel quoi franchement ñu ciy bàyyi xel mu ngi noonu fi nga téye bul dellu si sëy bi loolu laa am pour conseil que pour dellu si sëy bi parce que du sa ngëneel quoi seetal ngëneel voilà seetal ngëneel mu ngi xam nga yàlla dina la boole keneen ku gën si yow mais si jëkkër moom voilà tamit nga dellu si waat bien vrai que bëgg na mais nga dellu si waat tamit si ngay mujj waat si yenn xaar rek. salaamaaleykum ça va ne def naa yéen a ngi si jàmm bu baax waaw en fait man day damay seetaan fi moom dama koy seetaan dama koy si sama portable wala voilà mu ngi mais dafa am benn affaire bu tuuti bu ma si bëggoon a bon si sama gis-gis ah bon si côté de laal bon laal gis naa ni bon day dox si maay nu jëkkëram parce que affaire dina ko permettre jëkkër ji su su su xalaatu bu baax day fa si jabar ji hmm, day fa si voilà mereem mais nag Euh, si côté aussi tamit Marème mm, ak Cheikh bon pour man dama gis ne bon sëy bi dafa teel quoi franchement dafa teel dafa teel woon nañu dawal ba fin de film bi sax au moins euh, mariage bi di doog am mais nag si biir rôle lal li muy joué di dof dof et tout bon mën na mën na andi tamit am na mais day day day mujjee tasaat donc day tasaat après ñu dem ba benn moment ñu continuer di génnewaat mais sëy du fa amaat bon yooyu yëpp mën na si nekk mais nag euh, si côté Jalika Jalika voilà euh, man. Jalika dama neex franchement dama neex parce que jigéen nga bu dal bu cool xam nga voilà et puis li si Jalika mooy que toujours que moom voilà njabootam quoi doomam xam nga doomam te yaay doom dafa xaw a sori donc man Jalika vraiment côté man de macha allah macha allah bon. côté nan la tuddati sax jaww beneen bi xamante ni bon moment am daf ko contour et kooku moom super franchement super et puis man bon qu'est-ce qui se passe quoi lu muy xaar pour tund relation bi parce que gis naa ne seen relation dafa war a mën a nekk donc euh, qu'est-ce qui se passe quoi lan muy xaar pour tund relation bi parce kooku dafa bokk si moom benn dafa bokk si moom te wax na ko ci épisode bi passé jëlee na ko fi épisode vingt sept wax na si euh, daf ko jëlee bu sori yóbbu ko fu mu xalaatu woon tey dindi na ci moom du bari gaaw mer gi xam nga jeune wu gi muy jeune wu énervé wu bi muy jekk énervé wu et tout yëpp donc kooku dindi na si moom. bon si côté gars yi bëgg <laughs> xamante ne oh, nen na tuddati sax te muy naan rek xam bon yoogu moom day am parfois ni dina dina yàqam fi moom si benn si benn sa bu tuuti boo xamante ni eh, da kay continuer di ko dund te pourtant il était te om benn moment ku baax la woon et tout mais moom mooy yàq si benn côté parce que mooy def loo xamante ni si ay francs de seconde euh, xaalis lay doon wala bëgg-bëgg àddina donc euh, voilà film bi nice man nice parce que man euh, man moom dama suivre ay film man film moo dara du ma raw comprendre benn du ma surtout épisode yi xamante ni ñooy film yi am léegi bon dama si suivre yu bari mais nag dama gis ne dama gis ne film bi. Euh, voilà man bokk su doon su doon man maay maay maay wax si fi muy woy maay ka winde wo maa ngay doga mariage bi waa fin de film bi ngay doon ko fin de film bi ngay doon mais du doon léegi mais nag euh, cher aussi bon góor boo demee bay takk jabar am nga droit takk ñaar ñett ñeent mais naka defee si kaw ak euh, responsabilité responsabilité mooy di wax dëgg buy fen buy wax yu neew si yow xam nga wax dëgg bi wax lépp mu gënoon mu doon gën nëbb te parce que tey bi mu nëbb moo ko yóbbee tey bi muy dund donc mu ngi noonu la mujj wàññeeku toog si kër gi euh, te yooyu noonu defe naa ni dafa war a joxe bon exemple nga xam ni ñu xam ni ñun jigéenu senegal wujjatu dara wujjatu dara mais ñun dañ ko jël def ko ci suñu dënn dañ ciy saaga suñu borom kër yi te borom kër kenn waru ko saaga dañ leen wax lu bon parce que da dem wuti ñaareel dan ne balaa ngay xam jigéen ju baax dëgg dëgg dëgg dëgg nga takkal ko ñaareel si ngay xam ba xam yow jigéen ji nga yor baax na parce que jigéen ñun suñu diine li nu yàlla may mooy suñu góor yi am ba ñeenti soxna waaw loolu lañu yàlla may te nga yamale leen nag waaye su fekkee ñun saa su suñu borom kër yi taxee soxna rek ñu ñu dóor leen saaga leen wax leen wax ñu ñaaw rey leen soode leen yooyu pour lan lool moo fi war a jeex Sénégal loolu daf fi war a jeex parce que loolu noonu du exemple bu rafet du way bu rafet du du image boo xam ne bu rafet la ci suñu dëkk ndax Sénégal booy xool ñun bu ñuy joxe bon bon bon exemple rek si si Sénégal leen koy jëlee kon nag ñu góorgóorluwaat bu baax xoolaat tamit série yi ñu xoolaat bu baax niñ ciy doxalee. ci sama xalaat foofu noonu euh, la dafa waroon waaw takk nga ko koo takk mu ne ko takk naa Marème garaawut toog li muy lijjanti mën na ko lijjanti façon mais pas toj ay verre pas saaga dëgg la nag lu la bett mën la waaye dama bëgg chaque jour rek sama moroomu jigéen yi su dara amatee ñu ànd ceeg dal parce que dal moo lay may lépp. gis nga tey jii koo xam day jikki-jikki tàngal ndox soo de borom këram jamono yooyu ñu passé booy xool am na koo xam ne jëkkëram dafa ñëw na ko taqal naa la wujju rek mu taal jëkkëram ba noonu la si ñàkkee ba kanam da gis ñoo xam ne tey dan naan leen seen borom kër day ñëw naa taqal naa la wujju nga jam ko paaka wala nga dem tàngal ndox sotti ko ko xam nga te yooyu du man rafetlu wu ma ko daal rafetlu wu ma ko kon nag laal su fekkee ni moom lii nii muy joué wax dëgg yàlla man ku ma neex la ndax commencement bi gis naa ni mu doon toppandoo jëkkëram di ko nemmeeku bëggu ko loolu da di góoru Sénégal nag ñoom ñoom munta kenn mënu leen a tàgg te tawtewul ndax ñoom luñ gis ci biir tamit du tee dina yëre ci biti waaw da ngay def lu ne pour ñoom nag waaw chaque jour yaa ngi xool lu leen neex di leen toggal lu leen neex di sañ sa rafet mais duñ ko gis góor gu weex bët moo mel noonu comme que nag ñun mënalul leen dara dañ leen di bàyyi di leen seetaan parce que seetaan boobu nga leen di seetaan bu yàggee ñoom buñ xamatul suñ jëm dinañ wàññeeku waaw ndax mu taq indi moo gën muy wër di doxaan indi la feebar waaw te góor ñi bari nañ fi. ngay xool tey jii euh, Sénégal ñaata taq suuf ñoo fa am ci góor yoo xam ne dañu dem signé benn jabar nga dem ba mënatoo takkaat keneen nga takk takk suuf di nëbbatu di làqatu say doom tey duñ xamante. Ah, nga dem tey ba sa doom yow dem gisanteeg koo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk baay mu bëgganteeg moom wala mu sëyeeg moom boobu àq fan nga koy waxee ci àddina kon nag nan xoolaat bu baax xam ne ñun duñ ay tubaab ñun ay sénégalais lan ay jullit lan ay nit yu ñuul lan mënuñoo fexe fexe ba nekk tubaab nan bàyyi dund tubaab bi ñuy dund sëñ bi nag ma lay ñaan sama message si bu ko déggee nga la message bi parce que man dama bëgg jigéenu Sénégal yi delloo si waa waaw maa ngi jégg dama bëggoon a joxe sama xalaat rek comme que xalaat la ñuy laaj ci théâtre boobu di daw série boobu nga xam ne laal la gis nañ ni bi jàkkëram demee takk soxna ñëw wax ko ko gis na ni mu réagir toj na verre yi saaga xam nga génn daal di dem dugg néegam tëju defe ne woon nan sax dafa xaru wala dara mu jékki-jékki nga gis ko mu sol ay yéreem jaawale ay dàll di wax naan fase ko fase ko fase ko dalaa liggéey fase ko dalaa liggéey man foofu mënuma nungu mënuma nungu parce que jigéen laa dëgg la mais moom ni mu war li mu doon teeroo jëkkëram rek daf ci waroon a continuer parce que gis nga am na jigéen ñoo xam ne ñooy forcer seen jëkkër takk jaareel parce que bi doxaan bi amee ba mu jàpp seex mënoon na réagir noo xam ne xëy na seex dina rus pour wàññeeku ba du takk mais moom moo forcé parce que dafa mujjoon di topp jëkkër ji di ko téye ci kër gi naan ko doo génn liggéey ji boo xool am na benn contrat bu mu waroon dem signé ji mu jógi sax demul signé ko mais comme bind bi soriwul wàllu écrit bi soriwul ma si loolu moo taxoon il fa comme damay bàyyi vocal euh, may wax ne seen série bi am na solo trop trop trop macha allah mais di wax ne man ci sama analyse bu gàtt ci sama jàngat <laughs> li ngeen joué am na solo parce que góor ñi dara moo feesul seen bët ñoom xolu kafe lañu yor xolu kafe bu leen ngelaw li ëppee ñu wow bu ñu duggee ci ndox seey parce que ci sama analyse boo xoolee aawu buuru këram bi euh, di kii nu mu tuddati sax jàpp ma bi bu baax aaw aawom bi kooku jigéen yóbbulu ko dara parce que day fees na palaasam daal fees na palaasam dara manqué wu ko macha allah lu ko warloo ak jëkkëram yëpp mu ngi koy def am na maîtrise tam nekkul jigéen yooyu nga xam ne dañuy dégg téel rek mbala gis benn réaction ci seen ci seen euh, borom kër rek daal di agir ci saasi non non moom am na teey am na dal am na yar am na teggin xàmmee na tamit Euh, mais ci li ma gis moom ci sama gis-gis bu gàtt moom dafay day day dof doflu ci sama analyse daal day dof doflu pour perturber jëkkër ji pour mu mën a bañ a dem jox ko leen ale ayam puisque Marème mu ngi noonu préparé na toog euh, di xaar pour Cheikh ñëw pour ñu dem seen lune de miel mais gis nga laal la fu mu fëlee noonu ne laal la fu mu fëlee noonu perturbé jëkkër ji perturbé yaayam léegi xam nga lune de miel boobu noonu dina fomm dootul am mais erreur bi yëpp nag ak problème bi yëpp nag Cheikh la parce que euh, Cheikh bu fekkoon ne teg na ko si yoon ah, kon problème bi du demee nii yëpp parce que euh, jabaram jooju ji laal la seetlu naa ko ku am dal la xëy na bu waxoon ak moom beneen façon waxtaan ak moom ba mu ba mu nangul ko ba mu dal ba ñu juboo trouver terrain d'entente euh, mën naa foog naa ne du demee nii puisque Cheikh am na droit euh, takk ba quatre femmes am na droit takk ba quatre femmes loolu kenn bañu ko mais tam dafa neexul que nga nekk ak sa jëkkër ngeen di ànd di daanu di jóg mu lay muñal di di lay di lay bégal di lay kontaan loo loo wax mu ne waaw jox la total confiance nga jékkee-jékki rek xëy ne club ne këpp ci kawam di doxaan changé complètement yenn la fanaana toog dégg nga di def ay di tàggoo ay tàggoo yoo xamante ne ni sa jabar mosu koo xam ci yow liggéey ci ñëw la ñëw la xamoon ci yow ngeen toog waxtaan di bégg yaag moom ak sa njaboot nga jékki jékki nag am benn changement bi sa jabar tam foog mu dute parce que nit tam nit ku nekk nit rek nga mën a doon xel nga yor di xalaat te xool nga yor tamit ndaka naroon na nattu si boppam rek bu fekkoonte ni moom mareem mooy doxalee noonu kon bu boobaa tam ni mareem def fek noonu lay def parce que di xam ne bu baax kat jabaram bi mu nekkal changé na changé na bu baax waaw seex nag da ko waroon a woo wax ak moom nekko kat comme kilifa laa te bëgguma caaxaan lii ak lii ak lii ak lii moo xew bañ cee yàkkamte dara waxtaanante ak moom ba këroog mu koy nangul bu defee bu boobaa nag mu daal di takk ci jàmm salaam ñoom ñëpp ku ci nekk rek nga nekk ci jàmm ak dal mais jékki-jékki rek di caaxaan di caaxaan changer say orel tàggoo bi bëri na ba sa di indi ko ci di indi sa maîtresse ci sa biir néegu soxna waxantuma laa kaw la la mag salle de bain am ñu ne këlëb ne nga ne ko takk naa takk naa loolu góor ñi koy def dañ cee war a bàyyi xel parce que jaaduwul jaaduwul daal parce que dof mën na cee juddu risque bu ne mën na cee génn risque bu ne mën na cee génn parce que tamit joxe na foofu tam benn exemple bu am solo mooy fu mu jëlee paaka bi bu koo rey ah ba sa yàgg mu ne ko jaroo ko sax parce que su ma la reyee dañ may tëj jaru ko wax na dëgg day dof dof lu peut-être pour perturber mais suma doon moom duma ko def ndax moom car macha allah jongama na fa fu jongama yem moom laal la def na jongama trop hmm? fees na palaasam trop mane na fu nekk waaw waaye mareem <laughs> mareem yow kenn demul nga des <laughs> non mareem beneen affaire nga <laughs> mais kee tamit euh, ku ma estimé la hmm, nu mu tuddati sax jabaru biram bi jabaru biram bi tamit kooku tamit estimé naa ko trop ak kii tam ki nekk ci kii bi euh, ki nekk ci entreprise bi euh, joor la xawma joor la xawma mooy kii ku jigéen ki nekk ci entreprise bi xam nga jàppaguma seen tur bu baax mais parce que dama ko bëggoon a seetaan lépp à la fois moo tax pas këru ma leen mais neex na daal am na sens puisque nit ñi dañ koy dund te li ngeen joué ni couple yi presque la majeure partie yëpp dañ koy dund ok ma di leen ñaanal bonne continuation seen xalaat bi rafet na et tout yàlla defal leen jàmm ju bari defal leen wër gi yaram ak gudd fan asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu di seen liggéey bi wax dëgg yàlla macha allah ma bëggoon rek euh, participer ci maîtresse bi di wax Cheikh Diagne dëgg yàlla avant mi takk jabar waroon na toog jabaram nag ñu waxtaan ak moom parce que euh, am na droit takk ba ñeenti jabar sa loolu la signé ak euh, ba pare comme te moom diggante moom ak Marème dañ doon génn dëgg yàlla nëbb na ko daal ba toll fii ba mu xam ko léegi bu ñu takk jabar rek mënoon a toog moom waxtaan a moom ko defee affaire bi lay gënoon a neex daal ba pare si lay gën a rafet daal waaw si côté boobu daal loolu laa gis ba pare tamit laala tamit ni mu joué noonu wax dëgg yàlla euh, baax na tamit parce que nit ki boo meree nga topp sa mer trop dina la dugal si loo xam ne bu ëllëgee da nga koy réccu loolu moom ñu bari war nañ ci xool exemple bu exemple daal. ba pare tamit euh, ñoom jigéen ñi benn instant dañuy bëgg jël seen jëkkër yaakaar ñoom kese la daal parce que tamit yow ñoom dañoo war a yaatal affaire yi daal waaw dañoo war a yaatal affaire yi xam ni daal wujj du dara daal bokk ndey ak baay rek lool kese man daal laa ci gis méttilu méttul daal méttul wax dëgg yàlla nañu yaatal affaire yi rek moo gën ba pare kii bi mu def ni ne daal doof ni man gëwuma ko daal xam naa da koo bëgg a def rek comme te dafa fiir moo bëgg rek Cheikh Diagne bàyyi Marème waaye man xalaatuma ni dafa dafa dafa nii dafa ànd ak dépression daal man gëw ma lool waaw ba pare nag affaire boobu tamit tamit euh, mu joué noonu man gis naa ci cas bu mel noonu koo xam ne ko takkal wujju mu jëlee si dépression loolu nag sa yenn saa day daal wax dëgg yàlla dafay am. def siyaar lu bare bare wàllu xew tv ziyaar naa leen di suivre seen vidéo nag maîtresse seen vidéo yi bari maa ngi koy suivre ba ci épisode 27 bii ni mu fa demee noonu doy na waar mais pour man de la wujje jarul yéen nii daal jarul muy dem bay tourner sa xel ndax damay dégg mag ñi naan wujje boo ko wërsëg la dëgg la nag tey li tax xam naa jigéen ñi di ko bañ te kii ñëw xamoo lan lay indi ndax Marème dèjà egseegul xaj na laal la ak Seex jàmm mais nag pour man lépp Lalla la ndax topp bi mu topp Seex rek moo indi lii lépp rek ci sama xalaat man bu gàtt ndaxte jëkkër bu dee doxaan yaakaar naa mën nga comporté woon na neen ba mu bàyyi doxaan bi yëkk nga koy topp topp gi daal yaakaar naa moom ci la heure yëpp amee ndax bu toppul woon rek mën na indi leneen mais topp gi ko topp daal moom ci la yàqulee lu bari ndaxte dafa may Cheikh Diagne fit góor moom bu dee doxaan ba nga topp ko ba jàpp ko danga koy yokk fitam mais dootul bàyyi. waaye asalaamaaleykum ça va na def ça va bien waaw kii seen benn seen mbokk bu nekk Mauritanie te chaque fois damay suivre film bi dama koy suivre bu baax dama koy bàyyi xel bu baax di ko suivre te encore film bu important la si man. dama koy suivre toujours dama koy bàyyi xel bon c'est très bon léegi que j'ai macha allah problème mais nag man dama euh, kuréel seex parce que ku dem ba am responsabilité am di wut soxna war nga mën assumer wax sa soxna nga may takk jabar donc euh, li mu def lii jëf soxnaam awa mën na si gaañu mën na si am crise cardiaque mën na si feebar mën na si def nekk moom moo ko responsabilité ndax daf ko nëbbu. ba dara ma doog ko wax kooku lu ne xëj na mandaal man daal moom laa corrigé seex laa corrigé du du laal la seex laa corrigé moom laa corrigé parce que waruloon du xelam ne ak lu mën demee rek war na mën wax ni que man damay takk soxna mu am na droit am ñaar ñett ba ñeent yoon may nag kon warul na burtu warul la te góor excellent te góor bu demee ba ñemee baragal soxnaam rek warul baragal soxnaam warul takk jabar war na si moom rek góor bu demee baragal soxnaam rek warul takk war na war na yem si moom kese bon maa ngi jégalu na bu baax baax di la encouragé si film bi macha allah ñoo ngi koy suivre bu baax série bi ñoo ngi koy suivre bu baax macha allah ñoo ngi koy suivre amour série ñu ngi koy suivre maa ngi leen di nuyu ku bi théâtre bu def neex la macha allah wante nag euh, barki dem épisode bi maa ngi gis euh, Lalla. kii foofu noonu xaw a foofu noonu moom ci théâtre bi mais moom na comprendre rek xam ni tamit góor ñi moom xam nañu droit takk un ba quatre femmes wante nag dañ ko war a jaarale nag ci yoon waaw te nag yenn yi moom jaru ko yenn yi jaru ko surtout na nga bàyyi ay doom. salaamaaleykum sëñ bi na def. ça va yaa ngi ci jàmm naka coono yi waaw man maa ngi wax ak yow nii Maroc ci série bi ngeen di teg théâtre bi démb dama dégg ngay laajte xalaat bi ci waaye am man may sénégalais dëkk ci dëkk bi bëgg loolu sama réew maa ngi tudd Diop ah di la wax ni épisode bi am na njariñ lool maa ngi koy suivre épisode yëpp maa ngi koy xool bu ne maa ngi koy xool xam naa. ni muy doxee xam naa théâtre ba mu commencé bu léegi maa ngi koy topp ci YouTube bi laa koy xoolee mais série yi ngeen def am na njariñ lool lool lool lool lool lool wax man ci sama xalaat ni nit ku ne ak problème ni nga koy ni nga koy ni nga koy ni nga koy recevoir ak ni nga koy accueillir waaw bari na nit ak yére programme am na ñoo xam ne buñ meree wala seen xol jóg. li koy fajee mooy loolu ñu mën a téye seen bopp benn dañ crise ñaar mën nañoo jël paaka te duñ ko tay buñ ko defee pare lañ koy soog a yëg feebare la buy nekk ci nit wala ñu jël ndox mu tànk buñ ko defee pare lañ koy soog a yëg mais am nañ loo xam ne bu leen dara bettee day yéeg ci kaw seen xol lay commencé yéeg ci kaw seen bopp te bopp mémoire moo fa nekk mën na faa sopp lu bari problème day loo nit waaw dame bi la la elle a raison problème day dofloo nit. moo tax mu xalaat ni euh, ni ñu ko defee nii nii mu ko dal nii moo tane sa jëkkër takkal la wujj nga dagg waaye yàlla am wala nga sot ko ndox mu tàng nii moo gën waaw léegi nag bu ko defee cheikh moom ci boppam ni mu war a def mooy bu fekkee ne day wane ci théâtre bi ni bëgg na soxna si daa war a bàyyi kële mais ma xalaataat foofu ni ñuy seetaan cheikh bu bàyyee kële même bu fekkee ne laa lay def dof wala dof dof luwul ku koy seetaan sa xel mën naa def ni kon sama jëkkër bu takkee wuju ma dof dof la wala ma dof mu bàyyi jabaram lu daal lañ xalaat. waaw salaamaaleykum dama bëggoon a participer ci seen maîtresse bi waaw Lalla moom waru woon a mën a doxalee nii parce que moom moo signé loolu moom moo nangu seex takk quatre femmes kay daf ko war a accepter pour man boog ci sama xalaat bu gàtt daf ko war a accepter mais seex tamit def na benn faute. avant muy takk waroon na ñëw comme ça yégal ko balaa muy takk man ci sama xalaat bu gàtt daal loolu laa gis daal. ma ne neex na trop neex na trop nag mais bu dee plan bu mu tëral waa ndaw si parce que tamit waa ji moom c'est normal moom warutoon takk ndaw si quoi waa ji moom bi laal la xamee affaire dafa waroon a bàyyi ndaw si ak actuellement daf ko waroon a bàyyi tout tranquille waaw daf ko waroon a bàyyi vraiment quoi man daal sama gis-gis loolu la quoi daf a bàyyi war ko woon a takk quoi takk gi mu ko takk daal du yoon quoi foofu moom dafay juum carrément quoi bi laal la xamee action yi moom dafa waroon a bàyyi ndaw si quoi waaw ba mu ba mu ndaw si yàgg na quoi bi mu feeñee ba nga xam ne bii laal la xam na bagages yi ba ñëwee si kër gi noonu laal la dal si koom dafa waroon a bàyyi ndaw si tout tranquille quoi foofu la ko waroon a bàyyi quoi. wala muy jëngu dem ba di ko takk ni waaw soo neen lépp jàmm soo grand neen def soo dëgg yàlla seen action yi neex na trop neex na trop neex na trop waaw waaw ma seen numéro léegi nii mais man de sama xalaat si kii bi nii affaire bi ngeen di laajte noonu quoi mooy seen série bu mujj bi ah, si Lala Lalla ah, dofut plan bu mu tëral la pour bëgg waa ji wàcc ndaw si quoi mais bu ko wàccee bu ko wàccee mu wéraat quoi dara jotu ko quoi waaw plan bu mu tëral rek la noonu quoi mais neex na trop mais neex na trop mais. waaw asalaamaaleykum Mouhamed na nga def mbaa yaa ngi si jàmm man la ay Aysatu maa la woowoon sànq man daal euh, lii daal lu ma see xalaat. mooy que ne Lalla daal ay feemam rek la génnee fii waaw dugg na ci néegam daal xam nga moom xel mi xel mee ko wër ni mu def ba xool seex muy doxaan ba takk ba def yépp te Lalla réagirul denc yépp ci biir xolam xam nga loolu jigéen bu am feem dëgg a koy def waaye moo tax nag man nanguwuma ne Lalla dafa dof Lalla daal ay feemam la génnee ndax boo dégg ay waxam wax ji yëpp intérêt boppam la na ko fase ko fase ko ndaxte seex tayu ko dañ koo liggéey lëg daaw nee na ko fase man daal d'accorduma ne laal la dafa dof maram la bëgg a éliminer bu tee seex nag na teey bu teeyul rek dina dina ñàkk deuxième femme am laal la dafa caalit rek waaye na def ndànk te xam ne pël yaa ngi ci kawam moom dong mënul gérer pël yi ñoo ko dàq gérer fopp Marème nag na góorgóorlu ragal bu mag la xam naa ko. salaamaaleykum ñu ngi lay ziar bi di la jaajëfal bu baax kontaan nañ ci sa émission bi rafet na trop macha allah waaye ñun suñu jàngat ci émission bi ci kii bi ci série bi dafa am lu ñu jaaxal trop parce que góori Sénégal moom à chaque fois dañoo nim dañoo ñeme trahir ndax lan la jàmb ji amoon ak Cheikh ci biir kër gi Cheikh xiiful. marul raflewul Lalla toppatoo na ko soutenir na ko taxawu na ko biram am na jéeg yu bari yu sëy Sénégal duñu fonk sa yaay wala duñu fonk sa mag wala duñu fonk sa rakk mais Lalla dafa ñëw fonk biram bëgg ko fonk yaayam bëgg ko ana ban jigéen moo ko nangoo defar ci na kon loolu yëpp seex war na seexool même mu demee ba loolu yëpp am Lalla du ko suivre action par action mu bàyyi ba lépp daal mu yóbbu Lalla ñu dem weekend ñu toog waxtaan foofu ci xel sottantey xalaat amaana sax laala du ko bañ ndax laala ku baax xol la loolu yëpp mën na ko def raadi def ay réaction yu baax jikki-jikki rek ci tàngaay mën na ko takk naa diw tamit laala loolu tamit mën na koy jëlee dépression ndax jigéen ku nekk jigéen nga ndax jigéen matul ndax bu noonu jigéen dafa mat kon duñ ko jël di ko ci kër góor muy dem di fi sëy jigéen dafa ñu xelam sëggee nu weenam ni weenam sëggee noonu la xelam sëggee kon góor lu boo amee jabar lépp looy def nga ci toog waxtaan ak moom mais da gën a salte ba gën a pon mooy muy doxaan mareem di ko indi ci lalu laal bu mu tëdd ak jabaram kon loolu dafa mel ni Cheikh sax lim ni moom bëggul laala tamit loolu dafa mel dëgg la ndax nit soo bëggee sa jabar am na yenn yoo xam ne doo ko ko def waxuma la jabar ji nga xam te ne dana sëtanit ci yëpp am ak yow doom bu dul dara sa nga xool doomam man daal loolu la amoon ni may participer ci kii bi ci émission bi vraiment maa ngi kontaan bu baax di suivre say émission vraiment neex na te rafet nañ ko bu baax a baax macha allah laf ca kaw ci kanam ñooy jéglu nag bu baax baax. bëgg bëgg naa bu baax nga bi jàmm ba li ngay def am na solo am na solo mais femme bi bi ñu dikkee na ko takk na takk naa takk naa jabar temps boobu noonu waaw lim lim fiyee foofu rafet na trop parce dem na ba jël paaga nekk dama la war mi si mu ne que ko quoi parce que mu la rey dañ tëj. loolu naaj na mais instant bii nii bu demee ba si biir muy muy dof dof lu ko xaar peut être xam nga sax day dof dof lu mu di mais bu fekkente ne loolu la suyee nii dama xam ne dafa inventé woon dof bi nii pour pour pour génn si situation boobu noonu dama yaakaar ne kon day day wàccee boppam daal waaw dof bi nag mën na doon naturel théâtre bi neex waaw mën na doon naturel ci xam nga waaw ñu bañ a dégg fenn ne da doon dof dof lu quoi mu ñu dàqal mu xam naa loolu dàq parce que teg na ko pression bu jar dof daal waaw. parce que ku góor ki moom li mu foofu waaw mënoon na gën a sama doomu baax la mais li mu fee foofu nice waaw ni ko ni ko ko ni mu ko ko enseigné noonu dafa métti trop barke alxuraan mën na dof loo ko ne voilà li nga wax foofu loolu man loolu laa gis quoi. Lalla Lalla dofut de Lalla day dof dof lu xam nga Lalla boo xee ne seex ah bàyyi daa ko nee ah danga Marim dalaa liggéey nga takk ko ah Cheikh dina toog xalaat na ah, kii dama liggéey pour ma takk ko daal dafa bëgg say bi tas moo tax muy dof dof lu naan bay daawu nee na dafa laa liggéey pour nga takk ko léegi nag Cheikh day bàyyi xel si loolu naan ah di wérante xam nga nee na seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel man na koy xalaat na naan ah, kon kii ma liggéey ma takk ko. ndax Cheikh Cheikh bëgg na Marème waaye bëgg na Lalla tamit xam nga góor de góor moom kaay wàppe rek la yor ku ñëw rek mu dugal ci ñoom ñaar la bëgg bëggut a ñàkk kee bëggut a ñàkk kii il fallait que kee dof-doflu nag pour ke tas moom it da ciy bàyyi xel naan ah tey ma koo fasee tey maa bàyyi waaye bu ko fasee daal du am pour man ñu sëy si noo bokk ci kër gi toog ci lay gën a appeler ma man nag Marème ma neex la moom. dafa am baas xale bi dafa joxe neex na ma trop salaam sëñ bi ma ne ni sama xalaat ci émission marraine bi maîtresse d'un homme ah man de wax dëgg yàlla hmm? pour man daal takk ñaaree du crime non non daal am na droit takk ñaar ba ñett ba ñeent waaw xëy na nag nim ko defee moo ñaaw ndax daf ko yàgg euh, fen jabar ji naan ko man du ma takk si yow laa yem ak lu metti metti rek sa jabar bu ko bu ko saxal ci ay noppam naan ko du ma takk ñaare du ma takk ñaare même boo ko du takk sax dee ko wax ne ko damay takk ñaare bu yàlla soppee jamono damay takk ñaare pour ma koy suurale di ci def xelam waaye nii mu ko def nii xëy rek takkal ko dana ko def soog moom dana ko def soog da koo bett rek waaye su ko ko doon wax mën naa am lii ko dal ni du ko dal lépp góor ñi la góor ñi daa ñoo indi problème seen kër waaye jigéen moom jigéen moom bu dee jigéen rek ah, moom sa moroomu jigéen rek du la jëral poussé centimètre waaw du la jëral tamit dof waaye góor ñi bu seen kër tasee rek góor ko tas. salaamaaleykum wa rahmatullah ziar naa leen ziar naa leen yéen waaw damay joxe sama xalaat rek ci euh, maîtresse homme kom comme Lalla ni mu réagir ci série bi dama jàpp ni pexe pexe pexe jigéen la rek waaw dama jàpp ni pexe jigéen la quoi waaw man de loolu laa ko jàppe quoi dama jàpp ni dafa bëgg waa ji fase fase fase fase ndaw si rek bu ko fase mu delluwaatoon xam nga pexe jigéen dafa dafa kii quoi waaw man daal loolu laa jàpp man waaw ziar naa yéen